wax euh, suñu dernière partie émission bi nga xam ne dañ koo jagleel wàllum politique pour wax euh, lii nga xam ne mooy législative yi parrainage ces discours euh, voilà de vingt ans guerre nga xam ne nemmeeku nekk un peu partout des deux côtés le ministre de l'intérieur bi nga xam ne fu mu toll nii euh, mu mel ni comme dafa écarté de la course les titulaires de Yewwi ak scrutin proportionnel ak suppléant bu Benno Bokk Yaakaar cocktail explosif boobu yëpp <laughs> Daouda Mine naka nga koy jàngatee finalement man je me perds en fait waaw man de jàpp naa ne le ministre de l' intérieur fi mu toll nii mënul écarter kenn. waaw ah. ah, il reviendra au conseil constitutionnel. Mm-hmm. moom si boppam mu jël la décision en dernier ressort. Mm-hmm. parce que le conseil constitutionnel suñuy texte moom mooy le juge mm-hmm. ah, le ministre de l' intérieur moom moo nekk nga xamante ne moom mooy chapeauter la direction générale des élections parce que la direction générale des élections c' est une entité du ministère de l' intérieur. nga xam boo jëlee code électoral bu fekkee élection législative la ñoom ñooy recueillir les dépôts. donc bu ñu recueillir les dépôts nag après ñoom dañu war a publier la liste des na laa sax des candidatures yu nga xamante ne jot nañ ko. Mhm. xam nga euh, en rapport avec euh, le code électoral. Mhm. donc ñoom ñooy xool par exemple parrainage bi boo xoolee am na ñu nga xamante ne recalé woon nañ leen pour parrainage bi. parce que mhm. jàpp nañ ne mataluñu woon parrainage bi nga xamante ne dañ ko dañ ko euh, yoon da ko digle woon. ñu rëkkale leen. am ñeneen ñu nga xamante ne jàpp nañ ne peut-être dafa am ay doublon mhm. wala jàpp nañ par exemple respecté wuñu li nga xamante ne moom mooy euh, parité et consort mhm. foofu lañ ci toll démb nag li nga xamante ne gën nañ ko mooy gën nañ benn arrêté pour wax ni li nga xamante ne jàpp nañ ko ñoom mhm. ñi nga xam ne war nañ participer ci élection yi di ñëw moom mooy huit coalition xam nga de coalition politique ci huit coalition yi ñu ni ñaar ñi kenn ki dañu écarté li nga xamante ne moom mooy list titulaire am ci majorité ci na lay sax ci liste nationale bi. Mhm. muy euh, muy muy kii muy euh, euh, waaye Yewwi Askan bi. Mhm. dañ ne seen liste majorité seen liste titulaire. Mhm. ci liste nationale bi écarté nañ ko donc seen liste suppléant la ñu bàyyi mu jàll. sur quelle base. dañu wax ni respecté wuñ parité. ñu jël ñu jël par exemple bu Benno Bokk Yaakaar également. ñu ni titulaire yi si nationale bi titulaire yi baax na. mais suppléant yi également baaxul parce que respectul parité foofu nag man la question que je vais me poser mhm. loolu c'est une question que moi j'attends man avec impatience parce que moi je je je veux voir lan la le conseil constitutionnel va décider en dernier ressort mais est-ce que texte yi prévoir ne loolu parce que voilà ñun ay xale leen mais yéen ñi nga xam ne peut-être am ngeen benn certain durée ci métier bi lii euh, dafa mel ni gulet mu ngi soog am fii si Sénégal. ah man de man day peut-être <laughs> xale laa par rapport ak ñu ñenn ñenn ñi. voilà mais depuis 2000 maa ngi couvrir ay élections. Ah. je suis dans la presse depuis 2000. mine de rien ça fait 22 ans. ça fait 22 ans macha allah c'est première fois que ma gis lu mel noonu. Ah. et loolu moo tax ma ne la je j'attends avec impatience la décision du conseil constitutionnel en ce qui concerne surtout Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar. est-ce que loi bi am na lu mu si prévoir par rapport à code électoral li mu wax. Ah ah. mooy que mu nekk liste départementale que nekk liste nationale day am des titulaires et des suppléants. loolu la code électoral wax léegi ma question est de savoir su fekkee ne écarté nañ li nga xamante moom mooy titulaire ci liste nationale est-ce que liste boobu war na jàll. c'est la question que je me pose. bu ñu nee beneen bi également ñi nga xamante ne ñoom ñooy titulaire écarté na leen suppléants yi ñoom ñoo ñoom ñoo ci des est-ce que liste boobu war na jàll parce que moi je pars du principe que c'est l'unicité des listes mm-hmm. titulaire bu nekk moo ànd ak suppléant mm-hmm. léegi bu ñu écarté titulaire yi est-ce que suppléants yi rek mën nañ jàll léegi bu ñëwee par exemple ñii ñu accepté par exemple titulaire est-ce que suppléants yi également ñu écarté leen est-ce que loolu dina jàll c'est pourquoi je me pose la question de savoir est-ce la liste de Yewwi Askan Wi et la liste de Benno Bokk Yaakaar parce que man day wax dëgg fa yàlla ci sama xam-xam bu gàtt te li ma gis bokk ci texte euh, code électoral dañ ne liste bi nga xamante ne dafa war a participer ci élection législative dafa war a am une partie titulaire ak une partie suppléante loolu laa gis donc euh, man su ma la déggee euh, en terme voilà terre terre hmm. bu ñu waxee lu loi wax lu code électoral wax. Ah. ñii di Benno Bokk Yaakaar. Ah. ak Yewwi Askan Wi. voilà ils sont hors man na li ma jàpp. elles sont hors jeu. leur coalition. <coughs> li ma jàpp bokk. Mhm. li ma jàpp encore une fois. et peut-être sama xel laay wax parce que man. <laughs> Euh, la décision du conseil constitutionnel moom mooy la seule décision qui vaille fi mu toll ne <laughs> parce que ñoom ñoom ñooy décider en premier au dernier et en dernier ressort parce que conseil constitutionnel décision c'est de de recours. Mhm. man li ma jàpp mooy su fekkee ne code électoral def ne liste bi dafa war a am titulaire ak suppléant su fekkee ne dañu écarter suppléant ya liste boobu dafa war a nul suñu écarter bii tamit titulaire yi mu ne suppléant kese liste boobu dafa war a nul donc li ma jàpp boo mm-hmm. bu fekkee ne si sama xam-xam bu gàtt li ma jàpp <laughs> uh-huh. mooy Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi au moins ci liste nationale bi ah. mënuñu bokk ci élection yi tout à fait maintenant nag sur le départemental et consort boobu kenn écarté wu leen accepté nañ seen seen consort mën nañ compétir au niveau départemental mais mënuñu compétir au niveau national. ci li ma mais bu ñu gisee aussi yenn sorties yi nga xam ne. Euh, ku mel ni comme euh, voilà on le nomme Ousmane Sonko def na ko. Mhm. Euh, ñu gis ñu bëri jàpp ne sax décision bi nga xam ne les sept sages jël neen ko euh, si kaw ki nga xam ne moo nekk la DGE. Mhm. dafa wañ loxoom juste pour apaiser li nga xam ne moo nekk tension politico-sociale bi nga xam ne nemmeeku neen ko bu ñu see aussi benn wee bokk yaakaar aussi position yi aussi nga xam ne am na am nañ ko par rapport aussi ak ñi nga xam ne ñooy yeewu askan bi finalement. est-ce que am nga yaakaar nga ni que la loi sera dite aussi. je l'espère en tout cas li ma ci mën a. mais si tel n'est pas le cas aussi lan lay euh, suñu euh, système judiciaire di courir en fait. Euh, en fait il ne court absolument rien saga li ñuy courir mooy lan que ñu nekk ñu nga xamante ne kenn du leen nawloo. voilà yaa ngi dégg li ñuy courir ñuy courir parce que en fait. Uh-huh. ma li may am habitude di wax moo di parce que ki nga xamante ne moom moo war a arbitrer. Mm-hmm. kii war a dafa war koo def ànd ak ndey ji seex na te tëdde njaaxaanaay du moins mhm. Mhm. noonu la war def mais en même temps dafa war a courageux mhm. parce que bu fekkee ni man ak yow bu fekkee ni jote nañ ki nga xamante ne war na ñoo war a atte mais moom moo yor doole ji pour atte ñu te moom dafa war a nekk nit ku nga xamante ne lépp lu nga xamante da koy def na ko teg ci ay texte mais na jël yàlla également mu teg ko ci kanamam c'est-à-dire que pënd bi pënd bi tôt ou tard dafay wóore les hommes politiques ils sont dans leur droit ils sont dans leur role mhm. Yewwi Askan bi bëgg na li mu bëgg par exemple parce que politique ak pëccaxoo ñoo ànd politique ak xadar ñoo ànd ku ci nekk tu fais un discours bu nga xam ne un discours musclé xam nga di nga def par exemple benn opération de communication bu nga xamante ne tu vas même essayer de manipuler les journalistes wala tu vas essayer de manipuler l'opinion mais c'est de bonne guerre. La, la responsabilité de nous, journalistes, par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Euh, foofu foofu <laughs> ma yeggale maanaam ci ci justice bi. <laughs> léegi nag la justice bi nga xam ne moom war nekk le dernier rempart. warul topp par exemple parce que kii xupp na. wala kële par exemple mi ngi koy jéem a manipuler wala kële par exemple mi ngi koy promettre mon et merveille et consort. da nga war nekk nit ko nga xam ne yow yaay diggu doomu parce que yaa war a diriger te yenn décision yi boo ko jëlee ba suba par exemple le pays basculé parce que tout simplement jël nga décision bu nga xamante ne waroo ko woon a jël boo xamante dëppoo ko ci yoon tu seras comptable de ce qui va passer. Mm -hmm. boo jëlee par exemple journalistes yi dama leen di loge à la même enseigne que magistrats yi. Mm-hmm. parce que journaliste bi dafa nekk nga xamante ne moom dafa war a nekk a équidistance des chapelles politiques et des chapelles religieuses. Mm-hmm. le journaliste dafa war a dafa war a bind lu nga xamante ne. leer na ko ne dëgg la et leer na ko ne également luy jariñ askan bi c'est de l'information c'est ça l'information doit être quelque chose de neuf xam nga mais également quelque chose d'utile parce que nous avons une mission de service public mm-hmm. li ñuy def yëpp askan bi lañ koy defal donc nag bu fekkee loolu ngay def également manipulation fu mu mën di joge danga ko war a saytu et pour que ñu éviter manipulation nag mooy également ñun suñu bopp il faut ñu capacité suñu bopp mm-hmm. des fois on est manipulé malgré nous hein. Ouais. manipulé malgré Par ignorance, a, des textes aussi. manipulé malgré nous que, ouais. comment ça se fait quelqu'un va dire code électoral lii la wax lii la wax yow nga ñëw répercuter ko sans pour autant ja dem jël ci code électoral nga vérifier ko ça c'est de la paresse intellectuelle aussi. c'est de la paresse intellectuelle alors que fondement de notre métier mooy collecte vérification diffusion mhm. nit ki bu la waxee article sangam lii la wax demal nga vérifier article ba ndax loolu la wax mhm. mais su fekkee nee na article bi lii la wax caisse de résonance ngay doon tu vas répercuter une information peut-être loolu la bëggoon pour que yow nga nga yeggal ko fu nga xam moom si boppam mënu ko fa yeggal mm-hmm. parce que homme politique dafay wax fii lay yem mm. mais il faut que yow nga répercuter ko kite ko pour que mun yegg ba Kédougou léegi nag yow mi nga xam yaa am responsabilité boobu nga xamante yaay wasaare information boobu tu as cette responsabilité là de procéder aux vérifications mm-hmm. nga capacité sa bopp xam nga ba au moins la nga xamante nit ñi mu ngi la koy wax nga am ci un tout petit peu de savoir. Mm. parce qu'on dit que le journaliste ne peut pas tout savoir. mais il a l'obligation de connaître un peu de tout. Mm. il a l'obligation de connaître un peu de tout. wax économiste war nga am na. ay quelques notions ci économie boobu. malheureusement. Mm-hmm. débat yu bëri yu nga xam ne homme politique yi ñu ngi koy def c'est des débats juridiques. fépp fu ñuy waxee assemblée nationale moo tax dugalal ci ay débats juridiques. Euh, affaire Ndiaga Diouf ñu ngi lay dugal ci affaire affaire débat judiciaire affaire Ousmane Sonko ñu ngi lay dugal par exemple ci affaire procédure pénale ñun journaliste on en parle du matin au soir sans pour autant prendre le temps dem xool li nga xamante ne loolu la code pénal wax li nga xamante moom la code procédure pénale wax li nga xamante moom la code électoral wax li nga xamante ne yeneen loi yi nga xamante mooy régir le fonctionnement de notre pays di wax mm-hmm. et on en parle on donn la parole à yi nga xamante ne ils racontent du tout et du n'importe quoi par moment. Vrai, Et on laisse dire tout ce qu'ils veulent. Mhm. En le faisant, nous sommes manipulés malgré nous, mm <laughs> -hmm. mais cela ne nous dédouane pas. Mm -hmm. Nous avons l'obligation dalee nos capacité pour que population bi ñu mu leen une information crédible. on va terminer par le troisième mandat du président de la République Macky Sall euh, Daouda mu mel ni comme voilà ni oui ni finalement euh, euh, euh est-ce que du bokk. Ndiaye man sama waxu <laughs> sama waxu démb mooy sama waxu waxi tayaat man man. li ma ah. jàpp mooy Macky Sall dañ ko bëgg a jox pouvoir bu nga xam da ko amut. mais les constitutionnalistes euh, voilà dañoo am gis-gis bu wutee si déggoo déggoo li la wax de uh-huh. Macky Sall dañ ko jox pouvoir bu nga xamante ne da ko amut muy lan le mandat bi mu yor Macky Sall moomu ko ok le bi mu yor moomu ko yaa mandat yaa mandant yaa mandataire mm-hmm. mooy li yor pour du war ko exercer pendant cinq ans mm-hmm. mandat boobu Senghor yoroon na ko fi. Mhm. Abdou Diouf yoroon na ko fi. ab Ablaye du yoroon na ko fi tey jii moom moo ko yor c'est ça le bi mu yor. Mhm. yaa ngi mhm. ñun population bi ñun ñooy say mandat ñun ñoo ko jox mandat boobu pour que mu exercer ko. yaa ngi dégg moom sunu mandataire la rek la. ki nga xamante mandataire la mooy yow ñun ñoo la yebal pour que nga pour ñu benn mandat. pourquoi na nga war a toog nga ne man mandat man maa koy téye heure bu ma neexee laa koy bàyyi et c'est le la le conseil na laa koy wax sax la constitution du Sénégal moom moo wax mandat bi ñaata temps la war a durer xam nga ak kañ la ñu war a organiser élection et consorce mais avec le référendum euh, constitutionnaliste yi am na ñu bëri dañoo jàpp ne euh, deuxième mandat bu Macky Sall bi 2024 hmm. euh, lay war a mais mais mais mais mais chaque fois dañuy lay wax ne uh-huh. en matière d'interprétation uh -huh. bu ñu demee ba xel xeli xeli pëccoxoo da ngay dem seeti ki nga xamante ne moom moo nekkoon l'initiateur de la loi moo nekk kii ndax bu dem <laughs> pëccoxoo am par exemple man ma ne waa ji lii la bëggoon ci texte bi man ma ne lii la bëggoon ci texte bi dañ ne dem leen ci ka bindoon texte ba nga ne ko ba ngay bind texte bi lan nga ci lan lan nga ci jublu woon mhm. texte bii ñuy wax ne Macky Sall moo ko initié en 2016 en 2019 Macky Sall bind na livre ouais. ba mu bindee livre au moins si ñetti page mhm. nee na en 2019 bu ngeen ma élire je vais fair mon deuxième et dernier mandat mon second sax mhm. mon second et dernier xam nga loolu redondance la tubaab boo nee deuxième mooy mën na am troisième mais boo nee second mooy jeex na mhm. mais il a dit je vais faire mon segon et dernier mandat ça veut que man pour man débat dafa amut le président Macky Sall en 2024 il ne peut pas se présenter pour un mandat parce que nu ne peut faire plus de deux mandats consécutifs man sama gëm-gëm la loolu laa gëm te loolu laa jàpp te moom si boppam wax na ko ñu dégg bindu na ko ñun ñun ñu dégg donc dégg ko déggaatuma fenn yoon nag. Mm. depuis bu mu ko waxee bind ko ba pare fu mu waxee ni en deux mille 2024 damay nekkaat président ñun ñoo fi nekk di débat di interpréter voilà mais disons-le nettement le mandat ne lui appartient pas et c'est pas à décider. kan kañ la koy jox a kan la koy jox c'est pas lui d'en décider. leer na merci beaucoup euh, grand Daouda Mine ça a été un plaisir ah. un plaisir man bu question judiciaire yi euh, lëndëmee sama xel rek. <laughs> <laughs> <laughs> ma jàng si euh, voilà c'est toujours un plaisir hein, de partager le, pla le plateau avec vous. Euh, vérité pondéré aussi macha allah. ça a été un plaisir. merci beaucoup merci beaucoup. merci jaajëf merci aux internautes euh, yéen noon topp du suñu différentes plateformes yi on se donne rendez-vous incha allah rabbi jeudi. Euh, pour le dernier numéro de la semaine. D'ici la prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes. Merci.